Euh, def na actualité on en parle euh, et puis les réactions ni ma ko waxee léegi fusent de ban analyse. ba cest à man. oui dafa am xam ne dafa jaaxal. 24 février il me semble. moo doon mm. élection mm. am président de la république bu bees mu tudd Bassirou Diomaye Faye le 5 avril mu nommé un premier ministre bu tudd Ousmane Sonko sama xel dem ci article cinquante cinq comme beaucoup de bu ne un premier ministre de la République du Sénégal bu ko falee de par de coutume dañu tàmm quatre vingt dix jours yi sauf exception. Mm-hmm. kaawu Abdoul Mbaye il mu mu def ko au mois de septembre premier ministre Sénégal boobu ñu fal le 5 bii passé 2024 mu xam ni moom am na ñetti weer 90 jours pour dem moom jàkkaarlook assemblée nationale wax li nga xam ne moom moo leen fi indi ak nan la war a doxalee réew mi joxe seeni orientation ci inspiration patron woom waaw ñetti weer ki ñu fal mu war a doxal ci juróomi at ñu may ko ñettiweer parce que sans doute dañu war dafa war a préparer wu logique pour que après mu ñëw wax li nga xam ne moom moo ko tax a jóg pour d'abord la communauté nationale et ensuite en même temps j'allais dire la communauté internationale parce que déclaration de politique générale dafa intéressé réew mi ak bitim réew ndax Sénégal dafa am ñu mu séqal Sénégal dafa am ñu mu war a waxal muy ay réew mu ay société financière internationale muy ay partenaires yoo xam ne dañuy d'investissement partenaire d'investissement si je peux le dire comme ça ak yeneen ak yeneen yoo xam ne loolu ñoo ñu dañuy tënku ci pour xam ñoom tamit nan la ñu war a doxalee par rapport ak réew sangam la ça concerne le Sénégal waaw ce premier ministre là moom mu taxaw mu pare mu war a pare ci loolu ñu toog ba mu des deux semaines théoriquement am nga amplitude de temps bu nécessaire pour que yow nga mën a def loolu nga toog yow ba mu des deux semaines ñu ne le cinq prochain même pas deux semaines dix jours nga fexe ba ay nit ñu la jege commencé d'abord di chauffer sénégalais yi en leur disant que ni mooy réunion bi ñu def noonu bërki démb. <laughs> ne leen machin après y a Guy Marius Sagna qui débarque pour envoyer un courrier une missive <laughs> bu yónnee pour moom mu préparer pour tontu ko. pour que xañ na peut-être que ni ñoom ñoo xam yan raison moo tax ñu def loolu. mais moi je trouve que c'est malsain <coughs> d'abord rek keroog yàggul 5 juin mais premier ministre taxaw na ci conseil des ministres mu ne gars yi préparé wu leen waaw kooku kon bi mu leen di wax loolu fekk ni moom mi ngi sóoraale loolu bien avant te kooku xam na ni pour mu def loolu il faut que mu dem assemblée nationale te xam na ni bu demee assemblée nationale il faut mu jàkkaarloog ñoom. waaw lan mooy problème bi moi j'ai des doutes parce que tout simplement on peut être courageux parce qu'on est dans l'opposition oui. mais nag boo taxawee ba jàkkaarloog sénégalais yi war leen jiite war a doxal hmm. par rapport ak yow say promesse yi nga waxoon démb tey doog a ñëw la réalité est mais entre l'idéal politique et la réelle politique il y a une grosse différence léegi moom mu war a jàkkaarloog ñoom war a lépp lu mu leen mësoon a wax teg ko wax doo ko ci bopp Sénégal ba ñu am confiance ci moom ba 54 pour cent virgule 28 de l' électorat sénégalais ne moom la ñu ñoom la ñu fal mu war a ñëw nag war a def sa prestation pour gën a firndeel confirmer moom li nga xam ne moom la doon promettre sénégalais yi parce que espoir baa ngi fi ba tey ci moom ñu indi beneen problème. Hmm. lan règlement intérieur. mais vous ne saviez pas que ne règlement intérieur boobu dañ ko war a lijjanti ci diggante bi tout de suite après euh, euh, bi ñu falee Diomaye Bassirou Diomaye Faye qu'est-ce qui s'est passé gisul Amadou Mame Diop dajeeg moom mais xam nañu ce qui va normalement se passer ci fan ñi néew muy déclaration boobu am na yoo xam ne bu fekkoon ni dañ ko bëggoon lijjanti ca njëlbeen danañ ko lijjanti surtout que mbir mi amoon na histoire mm-hmm. waaye ñu ne dañuy xaar bu mu des fukki fan ñu indi coow mais man pour man c'est un prétexte pour ne pas assumer ses responsabilités responsabilité mooy lan nag. mooy li nga waxoon nga def ko. nga commencer d'abord par confirmer d'abord li nga waxoon ca biir assemblée nationale foofu mooy représentation populaire véritablement. boo demee ba wax li nga war a wax foofu ba pare te li nga war a wax nag xam nga ko parce que nit ñi déglu nañ la démb ba ngeen gagné tey doo ko ñëw. bu boobaa yow boo jàkkaarloo ak ñoom lan nga leen di wax parce que ñële tamit ñu ngi lay xaar ay po homme politique la ñu aussi ak ay femme politique yu nekk biir assemblée nationale. Hmm. ñu perte ay élections parce que sénégalais yi nee nañu yéen la ñu choisir ñoom ñu leen di xaar ci seen i promesse seen i diir ak seen i fee. waaw léegi nga war a ñëw taxaw man kat dama commencé réfléchir je me suis dit mais quand même y a quelque chose qui va pas moi je déteste la mauvaise foi. Hmm. da wax ñëwal boo li nga bëgg def soo ñëwee confirmer ko soo ko mënul aussi waxal ak ñoom nga choisir nga leen man mënatuma parce que lii ak lii ak lii la moo moo xew bu boobaa gars yi yow ngeen waxtaane ko parce que nag wax nga dëgg soxna si ça en fait quatorze heures quand même de débat mm-hmm. c'est trop long ouais. et c'est très compliqué absolument et c'est hyper hyper périlleux vous mm-hmm. pensez comme comme comme comme comme comme non il n'est pas en mesure il peut pas le faire il n'est ah, ne am nga droit sax bu la euh, neexee am euh, nga def nga ñëw def sa déclaration de politique ah, générale wax li ngay wax génn dem sa yoon. Mm-hmm. sans attendre le débat. sans attendre le débat bu la neexee yoon may na la ko. mais bu ko neexee na def mm. mm-hmm. parce que loolu yoon terew ko ko waaye nag li nga xam ni moom la kilifa dëgg di def nga xam. jóg rek parce que li mu bëgg dina ko def parce que réew mi moom la ñu fal am yaakaar ci moom te mu wóor ko ni moom li mu bëgg te li mu promettoon dina ko def mu ñëw jàkkaarloog ñoom assumer ko devant ces gens la très bien qui ont perdu waaye nag problème moom mooy. man j'ai été toute par rapport à son courage et sa volonté de le faire ou de la faire xamul nga lu tax ma xam ay doute parce que gis nga boo jógoon dëgg-dëgg pour liggéey ci loolu mais nag doute yi dafa bari xam nga tax parce que yow sa bopp yaa ne yow sa projet mois de septembre nga koy lijjanti ou fin décembre yow yaa ne yow yaa taxawoon ne yow Sénégal armée française dafiy jóge yow yaa ko waxoon sénégalais te mu leer la ni boo sàgganee boo jàkkaaleen ñooñu dinañ laaj lan nga ci xalaat mm-hmm. yow yaa waxoon ni yow ni france CFA bi yow dafa doy mm-hmm. ñoom dinañ la posé waat question ci loolu yow yaa waxoon sa diggante ak CEDEAO neneen nga ko gisee boo ñëwee jàkkaarloog ñoom xam nga ni loolu dinañ la ko laaj yow yaa waxoon ni homosexualité au Sénégal mm-hmm. euh, criminalisation bi dañ koy def yow yaa ko waxoon boo ñëwee jàkkaarloo ñoom dina laaj kañ la ñuy def euh, euh, loi bi kañ la ñuy teg loi bi voté loi bi sur la criminalisation de l'homosexualité yow dinañ la laaj di la laaj di la laaj yow lan nga xalaat ci FMI FMI bi nga xam ne France dégage bi ngeen doon wax la France est actionnaire majoritaire du Fonds monétaire international. Mm-hmm. yow yaay wax yow plan PSE bi nan def da ngeen continuer wala ban ban politique ban gouvernance bu bees ngeen war a ñëw. est-ce que da ngeen jël PSE e léegi ko teg ko fële. Mm-hmm. yow yaa waxoon ci justice. très bien. yow yaa waxoon ci transparence yow yaa waxoon ne fonds politique yi ay ay lan lañu dafa xaram. Mm. danañ la laaj ci diggante bi nga jut bi nga ñëwee ci nguur gi ba tey yow président de la république yow premier ministre est-ce que est-ce que. laaj yooyu laal ngeen ci fonds politique bi ngeen ñëwee ba léegi ndax dafa xaram. laaj yooyu assemblée rek la gën a la la la. mais ce sont ci la gën a neex pour. boo ko defee ci benn assemblée mais foofu la a neexee nga ne leen nga ne leen maa waxoon dafa xaraam xaraamatul. nga taxaw nga ne leen maa leen waxoon CEDEAO euh, euh, euh, amul njëriñ AES laa faral. moo tax man ma demoon ci ma changé avis du coup parce dama dem ci Ouattara wuy ji Ouattara parce que Ouattara moom a woo ma wuy si ko. Mhm. léegi Ouattara moom a woo man ak Ouattara lan la ñu diggante bi lan moo fi changé man sama président la République bi mu demee ci AES seeti gars yi waa AES yi ak lii leen wax wax na ko sax de nee na daf leen bëgg a jubóole pour dellu si faire dellu si gars à la raison. Mhm. yooyu yëpp da nga ko war a ko te loolu ça peut vous faire ça vous prendre toute une journée même une début un début de soirée donc c'est très compliqué et il va falloir que mm. Ousmane Sonko yooyu yëpp nag mu war ko assumer mu war ko assumer ci biir Assemblée nationale mais cher monsieur Diop c'est très difficile dafa métti yombul waaye nag yombin boobu gis nga xam nga lu koy gën gën a war a tax mu gën a yomb mu xaw a tane mooy nga humble ñëw taxaw ci li nga juumoon nga ne cee juum ci li nga juumul nga wax nga waxtaan ak say njoñ say nawle yoo xam ne ñoom dañ leen fal ngeen jéem a wut solution pour avancer ci réew mi merci France amul amul délai France amul délai ah. <laughs> France amul délai. amul mm. kenn xalaatul ñu fal la premier ministre. Ah ngay toog autant de temps. et cette situation ci affaire organisation par rapport au règlement intérieur. et Aliou c'est une par rapport ak cette situation euh, mi ngi bari et cette situation d'ailleurs wax nga ko léegi peut créer une crise institutionnelle ñu ngi koy wax te lu ñu war a mën a euh, éviter la si Ousmane refuse de venir et que l'Assemblée se braque. Euh, ana la ñu jëm. daan ci ñëw mais dama bëgg ñu jàll très rapidement benn sujet mais euh, balaa ñuy jàll am nga loo mën a sànni. jéegi am nga loo mën a sànni d'abord sur le plan juridique comme li ma la sur le plan politique sur le plan juridique comme li ma lay wax. article cinquante deux article cinquante trois le débat est obligatoire après la présentation de de la déclaration. si si c'est clair. l'article cinquante trois cinquante quatre cinquante cinq cinquante six ba cinquante sept. dañu ne dañu ne il peut. Hmm. non loolu non la question de confiance c'est la question de confiance qu'il ne demande pas ou qu'il demande mais le débat est obligatoire le débat est question de confiance dafa wuute ak kii il faut qu'il y ait débat parce que jéegi wax nga ko il faut que ñu jëm